إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اعلموا عباد الله أن دعوة إلى الله من أهم المهمات وأوجب الواجبات وأعظم القربات بها يستقيم أمر الفرد ويصلح حال المجتمع قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم رواه البخاري ومسلم والآيات القرآنية الدالة على الدعوة أكثر من آيات الصوم والحج الذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة اختار الله أكرم الخلق أكرم الخلق وأفضل البشر فدعوة أمر الأنبياء والمرسلين قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala jaamu yàlla dafa war fu mu toll di sant yàlla ñu ngi koy seedeel ne moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu di seede ne Muhammad jaamam la yonent la bu mu yónni woon ci ñun yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi ko nangoo roy ba ila yawmi diin maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sax ci loolu ngalawaay ba dee fekk leen ci gannaaw ba xam leen ne lii nga xam ne jamono ji ñuy dund ñoo ngi dund ci la ñuy tuddee jamonoy campagne lan mooy campagne mooy doomu aadama yi jóg ku nekk di jéem a convaincre say moroomu doomu aadama jéem leen a xëcc ba ñu ñëw ànd ak yow ca la nga xam ne bëgg nga ko ay yéen doomu aadama yi xam leen ne su dee ne am na ñoo xam ne jël nañu seen temps jël seen alal joxe seeni bakkan ngiree xëcc ay doomu aadama ca lañ jàpp ne njëriñu àdduna ma nga ca ngalawaay yow xamal ne jóg di woote jóg di campagne woo doomu aadama yi jëmaleen ci seen boroom boroom boobu nga xam ne mooy boroom àdduna ak boroom alaxira loolu yi lañu xam ne mooy la gën a itti ci lu doomu aadama di itti woo ci kaw suuf mooy la gën a nekk farata ci lu doomu aadama di faratoo woo ci kaw suuf bokk na la gën a màgg ci lu ñuy jegeel sunu boroom subhanahu wa taala campagne jëme ci diine yàlla ji wooteel sunu boroom lool rek ca la mbiri kenn ci ñun di baaxe waaye ca la mbiru mbooloo mi yépp di baaxe sunu boroom yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo santaane waaye itamit moo tagg ña nga xamee ne bañ jógee di campagne ña ngay campagne jëmee ci yàlla subhanahu wa taala ci seeni wax campagne jëmee ci yàlla subhanahu wa taala ci seeni jëf borom bi mu ne ana ko gën a rafet kaddu ci koy campagnal yàlla waaye boole ko di def lu baax ne man day bokk naa ci ñi nga xam ne dañ jéggalul seen borom ay yéen jaamu yàlla yi xam leen ne jóg di woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala nekk na loo xamee ni nii yonent bi alayhi salaam misaal na ko ci misaal yu baree baree bari kii di abi horayra mi ngi ñuy nettali nee na yonent bi alayhi salaam nee na képp koo xam ne jóg nga di woote ci aw yiw ku mel nooñee day yiw woowee ku la ca topp mbooleen jëf ya nga xamee ne da koy jëf ba ilaa yawmil qiyaama loolee yow dañ la ko bindal te du ko wàññil ci ay jëfam dara waaye képp koo xam ne yaa ngay jóg di woote di campagne di jëme ci loo xam ne ngërëmal yàlla nekku ca képp ku la ca topp mbooleem bakkaar bu mu ca am dañ la bindal yow ma woote bakkaar bu tol noonu te du leen wàññil ci seen bakkaar ya dara loolu moo tax ba jullit di xellu day xam ne nekkate yoote man sama dundi ci kaw suuf bokk na ci loo xam ne nii lu koy rafetal la di ma jubale ak sama borom di ma jëriñ gannaaw ba ma faatoo mooy ma daal di jóg jëm di wooteel sunu borom subhanahu wa taala jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ daan xamee borom alal yi mooy ay giléem yu tukkal yoo xam ne dañu dem ba xonq loolee suñ jamonoy tey jii ñu ngi koy tudde ay katkat yonent bi alayhi salaam mu ne day nga xam ne yàlla subhanahu wa taala jubale woon ci yow benn nit benn waay bu sanku yahud la nasraan la julit la boo xam ne du jaamu yàlla ngay waxtaan ak moom ba mu jaamu yàlla loolu de moo gënoon ci yow nga am benn parc bu fees dell ak i kat-kat suñu delloo ci téere borom bi subhanahu wa taala dañuy fekk ne suñu borom lim ñuy ñaax ci ñu jóg def benn campagne ci jaamam yi ngiree delloo lañ ci seen borom aaya ya cay wax moo ëpp doole téeméeri yoon aaya moo gën a bari aaya ya nga xam ne day woote jëme ci acc wala aaya yoo xam ne day woote jëme ci koor te ñaar yooyu nga xam ne mooy aja koor ay fonk la ci fonki lislaam yi nga xam ne juróom lañu sunu boroom ngir màggal da'wa boobu ngir màggal campagne boobu ña nga xam ne ñoo ko jiite mooy ña gën a tedd ci ay jaamam ñay tànneef ci ay jaamam ca mooy yonent yàlla yi alayhimu salaam ñooñee ñaa nekk ca bopp wooteel sunu boroom subhanahu wa taala borom bi nettali nañu lañ doon woote ka ca jiitu woon mooy nuux alayhi salaam nuux gis nañu ne ba mu demee ca xeetam nekk na fa junni at yu manki juróom fukki at di leen woo jëme ci yàlla waxuma mbokku téeméeri at wala ñaar téeméer waaye juró juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom fukki at nuux def na ko di woo xeetam sunu borom yàlla moo ñu koy nettali qaala nuuxu rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahaara falam yazidhum du'aa'i illa firaara wa inni kullamaa da'awtuhum litaghfira lahum ja'aluu asaabi'ahum fi aazaanihim wastaghshaw thiyaabahum wa asaruu wastakbaru istikbaara ay yàlla sunu borom sama xeet bi day jóg naa ci campagne dox naa guddi dox naa bëccëg fekk naa leen ca penc ma ku nekk dugg naa sa kër wéet ak yow yàlla dem naa ba léegi su ma leen jubee dañuy muuroo seeni sër ngir bañ maa déglu kon nag la nga xam ne mooy sama jaan wàcc na ci ñoom lii mbokk da ngay gis ne sunu borom mi ngi ñu koy nettali ci njëlbeen yonent bu mu wàcc ci kaw suuf waaye it sunu borom mi ngi ñu nettali ndekete nekkoon ci biir xat-xat warul tax nga fàtte campagne sa borom yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam ma nga nii ñu tëj ci biir kaso ba am na ñu bokkal cellule ñaari nit waaye gis na daa profitoo ci woo leen yaa saahibay sijni a arbaabun mutafarriquuna xayrun am illahi alwahidu alqahar waaw ay yéen ma bokkal cellule bi yéen a ngi nekk di bokkaale yàlla benn laaj laa leen di laaj ndax nga am benn yàlla mooy ndax nga am ay yàlla yu bari maa ngi yaakaar diw ak diw ak diw ak diw ndax loolu dana yem nga am benn yàlla kese boo xam ne moom lépp mën na ko li xel nangu kay sax ci benn yàlla bu mën lépp moo gën a dal xel di jaamu yàlla yu tasaaroo loolee mbokk nga gis sunu borom bam ñu koy nettali benn misaal lay jox jullit ñi ne yow da ngaa nekk au ca marché ba da ngaa nekk ca kër ga ca bureau ba da ngaa nekk ca tool ya ca chantier ba bal bu doon da ngaa nekk hôpital wala ci biir kaso ba ngalla waay bu lu fàtte di woote di jëme ci sa boroom subhanahu wa taala gis nañu ne ka nga xam ne mooy mujjoon ci yeneen ci yooyu mooy sunu yeneen ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam boroom bi mi ngi koy netti mi ngi koy digal ay ndigtal mooy udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawizati alxasana wa jaadiluhum billati hiya ahsan ay yow yeneen ci yàlla bi jógal woote jëm ci sa yoonu boroom na nga defee ci xikma muy sagesse muy ànd ak xel na nga ci boole di xuffu képp koo xam ne dafa sàggan waaye na nga ci boole di dàgg sante ak képp koo xam ne daal fetteerlu bëgg a neenal la nga xam ne mooy dëgg mbokk sunu borom bokk na loo xam ne fettali na ko ci yenente boobu ay yow yenente yàlla bi ma man maa la yónni nga nekk ak i seede nga nekk kuy bëggalaate di xubbaate waaye di woote jëme ci yàlla ci ndigalu yàlla nekk làmp boo xam ne làmp bu leer nga béggalal ma képp ku la gëm ca la nga xamee ni nii mooy yool boo xam ne yool bu màgg la loolee yonent bi alayhi salaam feddili ko ci làmmiñam sunu borom yàlla nettili ko yonent bi wax na ak sahaaba yi qul haadihi sabili ad'u ila allahi ala basira ana wa man ittaba'an sunu borom moo sant yonent bi yonent bi wax daa gi ne ay yéen ñi ma yónni ci yéen te ba muy wax ak sahaaba yi mi ngi wax ak ñun mi ngi wax ak génération yi nar a ñëw ba ilaa yawmi diin mooy man day sama yoon mi ngi nii damay woote jëme ci yàlla ndax man rek déedéet ak képp koo xam ne gëm na ma topp ma yow góor gi nga xam ne seede nga ne muhammadu rasulullah yow jigéen mi seede ne muhammadu rasulullah xamal ne rul ba yenent bi doon dox ci kaw suuf loolu moo war a nekk sa taxawaay te mooy fexe ba foo mën a toll ngay campagnal diine yàlla ji di woo nit ñi jëme ci yàlla yonent bi alayhi salaam mu ne ballihu anni walaw aaya na ngeen ma jottali li ma yàlla yónni doonte ne ne ah dafa nekk benn aaya yonent bi loolu ca la sax jiñ nañ ko ca ak ndof ca la sax jiñ nañ ko ca ak njabar ca la sax dóor nañ ko ba nàccal tànkam ya ca la sax dóor nañ ko ba toj boppam ba ba damm ba ñoom ba lii lépp am na ko ci lan ci jottali la nga xam ne mooy kàddu borom bi subhanahu wa taala campagne doomu aadama yi ndax pour jëriñoo leen déedéet mooy ngir jëriñ leen adduna ak alaxira te mooy jubale leen ak la nga xam ne mooy seen borom loolu moo tax ba nañuy xool suñu bopp fu ñu mën a toll moo tax ñun bokk nañu ci ñuy campagnal suñu borom subhanahu wa taala jamono ji ngeen nekk ci jumaa ji am na ñoo xam ne ña nga Kédougou ñee ña nga jaar Saint-Louis ñee ña nga jaar Matam di campagnal ka nga xam ne jàpp nañ ne mooy seen farandoo ci wàllu politique bi yee yow mi nga xam ne julit nga ndax mas ngaa xalaat benn jataay boo toog di waxal yàlla di woo say xarit woo say dëkkandoo woo képp koo xam ne yilif nga ko di ko jëme ci yoonu yàlla bu dee loolu amul woon góorgóorlul fexeel di woote ci yoonu yàlla da nga xam priorité ci woote boobee yonent bi alayhi salaam dafa yónni Muaz ibnu Jabal ca Yaman ne ko Muaz yaa ngi leen dikkal ay ahlul kitaab soo demee la nga leen di war a jëkka woo mooy woo leen ñu jaamu yàlla bañ koo bokkaale dara gis nga waa ji nga xam ne daf naan man diwlaay sama yaakaar adduna ak alaxira buy waat ci turam lay waate jàpp ne la moo koy xéewal jàpp ne la moo koy musal ku mel noonu bala ngaa nekk di discuter moom ci wàllu julli ak woor wala ay muuraay wala kaza wa kaza loolee nga war a jëkk a jéem a dindi ci moom jàngal ko laa ilaha illa allah xamal ko ne yàlla kenn waru koo bokkaale dara lahul xalq wal amru yàlla moo ne bind kenn dimbaliwu ko moom dong nga war a jaamu bu ca bokkaale dara waaye gannaaw loolu mbokk julit waa ji bépp défaut bu mën a am te nga yëg ne defew yooyu ñàkk julli ma nga ca xamal ne leneen loo ko mën a tere nga la waay fexeel ba insister ci ñàkk julli ndaw su dul muuru waaye du julli nga naan ko muurul te du julli da nga yàq say wax ka nga xamee ne nii dafay naan sàngara te du julli da nga yàq say wax fexeel ba ka ngay woo na nga ko woo mu jéem a taxawal julli julli mooy ponk bi gën a màgg ci diine ku ko taxawal taxawal nga diine ku ko màbb màbb nga diine gannaaw ba ñu ñaaxante ci jéem a ut lu dagan jéem caa génn zakat moom la borom bi da wax ne wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu din xunafaa wa yuqimu salata wa yutu zaka wa zalika diinul qayim ay yéen bokk julit xam leen ne woote boobu jële ci yoonu yàlla dafa am lu ñuy tudde ay priorité priorité boobu mooy lan am na ci lu ñuy tuddee fardu ayn mooy yow commencer sa bopp woote bay woote ca commencer woo ko sa bopp loolee échec moo ciy am adduna ak alaxira moo tax sunu borom mu ne atamuruuna annaasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afala tanqiluun ndax yéen ngi woon nit ñi ci njub te fàtte seen bopp te yéen yéen ngi jàng téere bi xanaa du ngeen xellu looloo tax ba lépp loo dégg ne baax na bala nga koo digle ngal la waay fexeel di ko def ba maîtriser ko lépp loo dégg na bon na bala nga koo tere kenn fexeel di ko fexe ba bàyyi ko loolu rek mooy mën a muccal sa la nga xam ne mooy sa boote gannaaw loolu itamit mooy nga xam ne sa njaboot ñooy sa priorité sunu borom dane yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara waquuduha annaasu walxijaara fexe leen ba musal seen bopp ci sawara waaye fexeel ba musal ci seen njaboot looloo taxit yonent bi alayhi salaam sunu borom neewoon na ko wa anzir ashirataka al aqrabin waa waaral ñi nga xam ne ñooy sa mbokk jegeñaale yi kon nan la woote war a demee commencer sa bopp tàmbalil sa njaboot fexeel say jegeñaale nga wax ak ñoom aay bi ba mu wàccee yonent bi alayhi salaam dem na ca la nga xam ne mooy safa montagne ba nekk diggante safa ak marwa daa di woote waa Quraysh yépp ñëw mu ne ay yéen waa Quraysh musal leen seen bopp ci sawara ay yéen bani Abdul Muttalib muy maamam musal leen seen bopp ci sawara bani Hashim musal leen seen bopp ci sawara ay Fatima sama doom musalal sa bopp ci sawara laa amliku lakum min allahi shay'a saluni min mali ma shi'tum ay yéen mbokk yi xam leen ne sama alal de mi ngi nii lu ngeen ci bëgg ñaan leen ma ma may leen am maa ëllëg gi si biir mënaluma leen ci kanamu yàlla dara mbokk kii di wax du Aboubacar du Omar kii di wax mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mënaluma leen ci yàlla ci dara fexe leen musal seen bopp ci sawara ay nu ñuy musal seen bopp ci sawara mooy lañ koy musale mooy al imaanu saxiix wal amalu saalix nañu fexe ba sunu ngëm doon ngëm bu sell bañ a bokkaale yàlla dara waaye nañu fexe ba jàng li yàlla farataal ci ñun ñu taxaw ci lii de buñ ko defee musal nañu sunu bopp ci sawara yal na yàlla musal ñu ci sawara defal ñu àddina sunu wàccuwaay boole ñu ñuy woote jëme ci aw yoonam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلته عظيمة وقد أده بعض العلماء ركن ركن السادس من أركان الإسلام وقدمه الله على الإيمان كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقدمه الله على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والله عزيز حكيم وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ولما قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنه أيهلك أنهلك وفينا الصالحون قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كسر الخبص رواه البخاري أي mbokk jurit yi ñi ngi yeesal di sant sunu borom di ko ñaan mu yeesal ay julleem ca sunu yenente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu xam leen ne ay jullit sax di xool lépp loo xam ne lu baax la lu yàlla santaane ci pénc mi te yéeg ni nit ñi defuñu ko ñu ñaaxaante ko bañ def ko waaye lépp loo xam ne merum yàlla la ci pénc mi ñu fexe ñaaxante ba mu jóge fi loolee nekk na wàcc waay bu rëy ci diine lislaam bal la nga xamee ni nii mooy islaam juróomi ponk la seede yàlla kenn la muhammad yonent yàlla benn nga taxawal julli joxe azaka war weeru koor ak màkka muy juróom waaye lenn ci borom xam-xam yi dem nañ ba ne am na bu ko juróom benneel mooy lan mooy digle lu baax tere lu bon sunu borom yàlla loolu la tagge xeet bi daa di koy jiital sax ba mu koy wax ci gëm yàlla mu ne yéen yéenay xeet bi gën a baax bu mas a jaar ci kaw suuf lu tax mooy da ngeen di diglu lu baax di tere lu bon ci da ngeen a gëm yàlla loolee kon booy bàkkoo xeetu lislaam na am gëm yàlla day mooy fondement ba waaye xamal ne bokk na la la koy may mooy nga bokk ci ñuy diglu lu baax di tere lu bon sunu borom mi ngi ñaax ci ñu diglu lu baax tere lu bon ci aaya boo xam ne moom sax la yàlla jëkk a wax taxawal julli ak joxe zakat sunu borom ne jullit ñi gëm ñu góor ña ak ñu jigéen ña nañu déglu aaya bu bu baax sunu borom bu ne woon jullit ñu gëm rek ñu mën caa déggaale jigéen ña waaye sunu borom dane wal mu'minuuna wal mu'minaat jullit ña góor ña ak jigéen ña lenn la ñooy farandoo la ca des dañuy déglu lu baax dañuy teru lu bon dañuy taxawal julli dañuy joxe azaka dañuy topp yàlla di topp yeneen ci yàlla ñu mel nii de yàlla dana leen yërëm ndax yàlla mooy ki nëb ci kattanam ca mooy ki xereñi yàlla na yàlla boole ñu ca ñoom yërëm soo bëggee bokk ci ñu na yàlla yërëm da nga yërëm tëlu naka la ñu yërëm tëloo xoolal li yàlla ne ku ko def mu yërëm la te loolee la ca jiitu mooy digle lu baax tere lu bon kii de Xusayfa radiyallahu anhu bokkoon ci sahaaba yi jege woon yeneen ci bi nee na yonent bi alayhi salaam day nee na maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk loolu moo ëppoon ci lu yonent bi alayhi salaam di géñe ngal la waaye bul giñ ci barke Muhammad bul giñ ci barke Kaaba bul giñ sa géñoog bàyyi bul giñ ci cheikh diw wala cheikh nangam booy giñ giñal ci yàlla yonent bi lam ëppoon ci ay giñam maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk da ngeen digle lu baax di teru lu bon su ngeen ko deful day yàlla dana indi ci yéen ay fitna indi ci yéen ay mbugal ba da ngeen ko ñaan du nangu seeni ñaan mbokk société bi bu yàqoo yàlla day mere société bi mboola seen ba dootul nangu sax seeni ñaan ummul muminina di zaynab bintu jahsh radiallahu anha daa dina ah yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñun mën nañoo àgg ca ñu baax nekk suñu biir mu ne ko naam bu dee lu bon dafa doon loo xam ne du tasaaroo la loola tax sunu borom jalla wa ala di wax ne wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum xaasa waalamu anna allaha shadidul iqab ay yéen julit ñi moytu leen ci fitna boo xam ne bu wàccee du yem ca ña tooñ rek xam leen ne yàlla ku tar mbugal la loolee kon bu dee da ngaa gis xale bu jigéen bee nga daraas pantalon jiinam sol jumbux aawutam xale bu góor bee bëtt jaaro ca noppam kee nga xam ne mooy nekk ca ribaaba gaa yee nekk ci pays mi yow nga jàpp ne loolee ñu def seen affaire la yow ñàkk nga xam lan mooy sunna yàlla ci kaw suuf abi bakar radiallahu anhu daana wax ne ya ayuha nnas innakum la taqra'una hadihi al aya ya ayuha alladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla ida htadaytum وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالم فلم يأخذوا على يديه وشك أن يأمهم الله بعقاب منه أبو بكر تخون جكو من دار ينتبي صلى الله عليه وسلم دادن أي نني يني جانغ آي بي شتير بي الله بي تموي أي نني نغن توب تو سين بير بوب كيف كو خامني دا فرير دو لن لور غالا واي آي بوبو بوم لن نخ amul kenn koo xam ne sa mbir bopp dana mag lu dul ne danga caa boole diglu lu baax teru lu bon loolee nga xamee ne nii moom mooy tubaab bi lam ñu jàngal mooy ay liberté égalité doomu aadama bi ku nekk am nga sa liberté bopp boo xamee ne kenn amul droit di la ca fekk islam gisewu ko noonu léegi lañ nga dégg benn waay boo xam ne danaan nit daal da ngay maandu gëmal la nga gëm bàyyi ñetteres gëm la ñu gëm mbokk bu doon loola yonent yi alayhi salaam daan jihaad yonent yi alayhi salaam daan gàddaay yonent yi alayhi salaam daan watu guddeeg bëccëg bu doon ku nekk da nga gëm da nga caa jàpp mbokk loolu waxi seytaane la waxu cànkute la bal su dee xam nga ne ngërëmal yàlla mooy lii yoonu yonent yàlla mooy lii képp koo xam ne nekkute waru gar la nga jóg jéem koo waar jéem koo gindi abu bakarin sadiq ne man day dégg naa yonent bi alayhi salaam ne doomu aadama yi buñ gisee lu bon ñu mënoon koo dindi ci dindiwuñu ko sunu borom yàlla buy wàcc mbugal mbugal ba ñoom ñépp la koy boole loolee kon di mbir boo xam ne tey bu dee ne Sénégal ñu ngi jóg ci wàllu campagne ñii génn ay milliards ay colonne de oto yu dul jeex guddi ak bëccëg fu ne ñan fa jëm moo ana ñay ñan ñooy campagnol sunu borom jàll waala ba sunu mbedd yi soppeeku nekk mbedd lislaam ñan ñooy campagnol yàlla subhanahu wa taala ba ndaw ñu bari ñi nga xam ne tey jii ay nit nax nañu leen toq nañu seeni xel dindi leen ci diine yàlla ji gëmloo leen ay nit daal di leen di fakk jàngaluñu leen yàlla jàngalul leen yonent yàlla bal di wax ne seen ndaje yàlla amu fa yonent yàlla amu fa man naa fa nekk ak man ak sab sëriñ mu ana ñan ñooy dem ci ndaw ñooñu delloo leen ila siraatil mustaqim te xam ne musiba boobu wallahi yemul ci ñoom dafay am ay répercussion ay jeexital ci sunu société bi yépp njaaloo li muy bon bon ah rey nit li muy bon bon riba li muy bon bon bokk na lu gën a bon mooy la nga xam ne mooy bokkaale sunu borom musul yónni yonent lu dul ngir mu tere bokkaale sunu borom musul alal benn xeet lu dul ne xeet ba dañ doon bokkaale lii mbokk nañ góorgóorlu jéem a ci defaat sunu kéemtalal kàttan kéemtalal kàttan bi mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne man raa minkum munkaran falyuhayyiru bi yadi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi ku gis si yéen lu bon na ko dindi ak loxoom caaxaan yi am fii band woote ay ndaw réeral leen ndax mbokk yaakaar ngeen mën naa am Arabie Saoudite loo wallahi kenn xalaatu ko fa ndax yarub lislaam mi nga fa taxaw jaasi lislaam mi nga fa taxaw ku fa wax loo xam ne dafa safaanoog lislaam la la cee xaar xam nga ko ba kenn ñemewu ko waaye même bu dee ne amuñu gouvernement bu mel noonu ana sëriñ si waroon a tere ndax duñu jóg di wax bu ñu nekkee tey ci campagne ku nekk naan joxe na moo d'ordre joxewul moo d'ordre mu ànd lu tee ñu def ay sortie di wax ak xale yu jigéen ñi seen col gi am na tey ñu def ay sorti di wax ci PMI bi ak riba bi am na tey ñu def ay sorti di dénoncé ñi nga xam ne ñooy réeral ndaw ñi di leen dévier ci yoonu islam rawatina ñi nga xam ne seen turu baay la ñuy waxee wala seen turu maam la ñuy waxee moom mbokk ana ñooñu ala kulli xaal yow bu dee ne yow bokkoo ci ñoo mën a wax mu deñ xamal ne la nga mën a mooy lan mooy nga a naqari sa xol ngay ñaan yàlla subhanahu wa taala foo mën a toll yàlla musal la ci musal ci sa njaboot ban ñooñu di sànq doomu aadama yi sax yàlla alag leen daal di teg doomu aadama yi ala siratul mustaqim lii mooy la gën a néew ci gëm comme la ko yonent bi alayhi salaam waxee nañu góorgóorlu nekk kuy campagnal sunu borom ba dee fekkuñu ca loolee wax ko ci sa kàttan bu dee man nga koo mën a waxal waxal ak moom su dee mënoo wax ak moom na nga seet keneen ku mën a wax ak moom mu wax ak moom loolee danay am naxal képp ku réer yóbbu ko ci jàkka joo xam ne wóor na la ne su fa demee di fa julli boo paree daan ko wax qaala allah wala qaala rasulullah gannaaw ba ay kaset bari na lool tey fépp fu ñuy waaraatee ñu ngi koy enregistré fii ma nekk nii mbokk yaa ngi di enregistré xutba yi fi jaar yépp heure boo ko bëggee mën nga koo jël tegal ko sa waa kër mboolem tafsir yi fi jaar mën nga koo jël tegal ko sa waa kër yéemu ci jàkka ji bari na ay jàkka nañu góorgóorlu sunu alal ji lam jaral politiciens yi kër bu ne ñu dugg fa wallahi man sax am na ñu ma seet si bañ waxee wax ba la jël xaalis jox ma ko ma delloo leen ko waaye lu mu mën a am loolee mu leen jaral ñuy dox guddi di dox bëccëg na la ko si dina jaral bokk na ci paaru zakat la ñuy tudde muallafatu qulubuhum am na ci doomu aadama yi lépp lu ñuy jëm rek dañ caa gis intérêt d'abord kon yow yàlla may na la alal képp koo mën a nax di ko defal teraanga dee ko defal teraanga olof ñaa nee na ku ëmb sa sanxal ëmb sa kersa soo leen di defal lu baax da ngay gis na woo leen day yomb ci yow loolu waaye tamit nañu doon ñuy aji muñ léeg-léeg ci ngay woo sa baay lay doon yaa ngi koy woo jëme ci njub moom mu lay xeex léeg-léeg sa jabar lay doon léeg-léeg sa jëkkër lay doon léeg-léeg say doom lay doon léeg-léeg sa dëkkandoo lay doon waaye sunu borom mu ne idfa' billati hiya ahsan fa idha alladi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun hamim wa ma yulaqaha illa alladina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazin azim na ngay woote jëme ci yoon waaye it del jañe lu bon lépp loo xam ne lu baax la ku la def lu bon na nga ko jañe lu baax te it nga daal di bokk ci ñuy muñ soo ko defee rek sa noon ba dana mujj nekk sa xarit abu bakarin sadiq radiallahu anhu yàlla ba mu santee yonente bi mu woote bokk na ca ñaka njëkk a gëm woo na bàyyam ja mu bañ diiru ñaar fukki at ca la bàyyi ba doog a nangoo dugg ci lislaam te atum juróom-ñetteel ba ba yonente ba daal di woo daal di ñëw ci ñëw ci ubbi makka loolu mooy ndaw yow ñi nga xam ne dem nga ci jotaay yu diine yi ba xam nañu lan mooy alquran ak sunna sa yaay demul sa jabar demul sa baay demul xam nga loo xam ne xamuñu ko na nga leen woo ca la sunu borom wax mooy bil xikmati wal mawizati alxasana gannaaw bu bul gaaw a découragé te yow mi nga xam ne way jur nga yow mi nga xam ne ku mën a doon góor góorlul woo tamit nga xam ne sunu yeneen ci li muy baax baax sunu borom nee na ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha yow de mënoo jubal kenn yàlla rek mooy jubal del woo sa njaboot booleeg di ñaan yàlla mu jubal leen del woo ka nga bokkal marché booleeg di ñaan yàlla mu jubal ko comme ni ngay ñaane yàlla fukki yoon ak juróom-ñaar bés bu nekk yàlla jubal la te saxal la ala sirat al mustaqim gannaaw bu mbokk la ñuy mujjee woote jëme ci yàlla lan la ñuy jëriñ mooy ñun sunu dund gi lu muy yàgg-yàgg am na fu mu yem waaye waa ji nga xam ne daawul julli nga nax ko ba muy julli heure boo deeyee julli gu mu julli ñu bindal la ko képp ku mu jàngal julli julli gu mu julli mu bindal la ko soxna si daawul muuru naxante ak moom ba muy muuru tant que mi ngi muuru sa gannaaw ak kum ko jàngal ba ila yawmi din loolu la yonent bi alayhi salaam doon wax ne doomu aadama bi bu deeyee mboolem ay jëfam dagg na xanaa lu dul ñetti mbir sarax boo saraxe woon muy wëy wala la nga xamee ni nii mooy xam-xam boo xamee ni da nga koo jàngale woon na ci mujj mooy doom ju baax joo xam ne da lay ñaanal yal na yàlla boole ñu ci ñuy campagne jëme ci moom yal na yàlla jubal ñu ca boole ñu ñuy jubale ay jaamam yal na yàlla saxal ñu ila sirat al mustaqim boole ñu ñuy woote ala sirat al mustaqim yal na yàlla wàcceel ñu jàmm ci sunu réew yal na yàlla tànnal ñu njiit boo xam ne danañu jiite ci ngërëmal yàlla ci njiit boo xam ne dana ci xeex lépp loo xam ne nii merom yàlla la yal na yàlla subhanahu wa taala boole suñuy xol musal ñu ci ay noonoo gi dox suñu diggante musal ñu ci ñuy tuurante ay deret musal ñu ci ñoo loo xam ne daf ñuy jàqale yal na yàlla defal ñu mujj bu rafet jubal ñu jubal sunu njaboot te ñun ñëpp mu boole ñu àddina muy sunu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxasirin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin